rahmatullahi wa barakatu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu sëriñ bi waxtaan yi kawe na lool am na solo niñ ko waxe woon ca njëlbeen gi rek waxtaan la boo xam ne um yàgg waajal la ba def ci bax boo xam ne ëpp na ñaar téeméeri paas ba biig ci guddi bi ñu waxtaan danaan ma man di waxtaan dana ma jaaxal ndax wàññi naa wàññee wàññi ba téeméeri paas moo ci def nga xam ne kon sonn na ci lool te lu mu yaa lu mu waajaloon la lu jiitu ñu di ko woo fii ci jataay kon ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax suñu borom dolli koo sàmm suñu borom dolli koo dëgëral bu baax a baax xam naa bala ñuy sori ci waxtaan wi am na laaj bu ci wadd rek ñu jox la ko soog a ñëw ci bi la ci waxtaan bi mbokk mi dafa laaj ne dañoo biir waxtaan wi ne ku baax bi sëñ bu mag bi wax ne rey na seytaane ba mu ñu gis biir waxtaan yi nga junjaan ne fekkaat na ko ci njaareem te xam nañ ne njaareem mooy marxala bu mujj ci dund ku baax ci zaar loolu daal nee na mu xaw koo jaaxal ko mu bëggoon ci ay leeral xam naa bala ñuy incha allah
waa jërëjëf jërëjëf borom borom laaj bi moom dama koy sant bu baax ndax dama dimbali xam nga dama xamul fi ma ci tollee da déedul waaye suñ bi saytaane bi nga xam ne mooy taxu kenn ku nekk ci noonu soo seela wax ne moom la rey wax na sax ay bëy dama gaawante bi moom ma indi rek ay wax na ne ñidaati wa aqlaami wa kulli li dil wara wa qad xaaba saytaani faridan wa madbuha maanaam saytaan yi mooy saytaane bi nga xam ne mooy xarin bi ko suñu borom boole nu xajit lahu seytaanan fa huwa lahu xarin xarin bi nga xam ne kenn ku ne muy taxaw ñun seytaan yi law yi nga xam ne moom la iblis di yabal kookee la rey moom la wax ne itam xata saara bi anna allaha xatala seytaana xaaidi hadihi alqasira seytaane fi nga xam ne mooy taxaw kenn ku ne ñun boobee la rey ba mu ko reyee nag ci la ci la ponkal mu mag ma tàmbalee jàmmal ak moom wasalaamaaleykum wa rahmatullah
jërëjëf sëñ Ahmadou na la yàlla gën a dolli xam-xam tam gën a barkeel dund gi bu baax a baax a baax ñuy fàttali ne ci jataay bi suñu mbokk waa Qurratul Ayni nga xam ne lu ñuy def rek ak lu ñuy taxawal dañ leen gis suñu wet ñu teew ànd ak ñun sëriñ Amsatu Jaxate ak sëriñ Abou Mbacke teew nañ ci jataay bi ñu leen di dalal di leen nuyu it ci turu Ansaaru Diin kon mbokk yi xam naa ñu njëkkanteeg waxtu yi rek sëriñ bi indi na fi waxtaan wu am solo woo xam ne niñ ko waxee woon ca njëlbéen ga ñetti tomb yi ci la ñëw tomb bu njëkk bi leeral na ci histoire seytaane ak nit ñi maanaam noonu ko fam tàmbale te loolu sax lu ko jiitu sax la wax muy jàmmaarloo bi amoon ci diggante seytaane ak suñu borom xam naa ne seytaane ku ñàkk sens la ndax ni mu amee woon doole ci biir nguur suñu borom ak ci mujj tey torox xuróog yàlla waat ci kanamam ne ko danaa leen danaa leen delloo dafa ma jëm bu ëllëgee fa lañ jëm waaye suñ borom it ci màggam bi xamal ko ne ko ba mu des sama jaam yi nga xam ne ñooy way sellali yàlla nañu ci yàlla boole booba ba tey nag mboolem ku fi jaar woote ci ndigalul yàlla seytaane jëflante na ko yow mboolem yonent yi saxaaba yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na sax benn xadis boo xam ne imaamul Buxaari yi waddal na ko ñu ne Seydina Abu Hurayra moo ko nekk moo ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana ma dénk asakay muurum koor ci Abu Hurayra moo nekkoon ci gënoon a ñàkk ci saxaaba yi la doon kon ci gënoon a ñàkk ñu jël alal bu takkoo takk di ko ko dénk waaye nee na léeg-léeg ma ñëw guddi di xool ci liñ ma dénk ma fekk benn xale bu cap ci biir sàq na ma ne ko waaye looy def fii mu commencé jooy naan man de damaa amul lu ma lekk sama ndey sama baay sama nangam nangam ma ne ko déedéet damay jàpp ci sa loxo dem ak yow ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na mu yërëmtalu rek ma ne ko baax na jërëm Abu Hurayra ne damaa jub yonent bi mu ne man noo def ak sa waaj te nettaléegu ma ko mu ne ko ah wax dëgg yàlla am na xale bu ñëwoon wax a wax nettali ko ne demee yëpp yonent bi ne ko waxut dëgg dana del ci waat nee na ci suba ga Abu Hurayra jaaraat fekkaat ko mu jàpp di lekkaat ci sàq mi ca saa yuñ compter rek gis mu wàññeeku ak Abu Hurayra ni mu jubee ak ni mu baaxee ak ni mu sell nee na mu ne ko tey moom mënoo wax a wax ba du mën a yóbbu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tey moom faaw ma yóbbul mu ne ko dimbali ma rek la ma la waxoon démb moo ma jotal Abu Hurayra daat koy yërëm daat koy bàyyi jubaat yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi ne ko noo def ak sa waajo mu ne ko ah xëy da waat na nee na de du del si waat nee na ma lii ak lii yonent bi ne ko waxut dëgg dana del siwaat nee na ca ñetteel bi yoon ma del siwaat ci sàq bi fekkaat ko mu cap mu ne ko jërul wax moom tey moom ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek mu ne ko dimbali ma rek mu ne ko tey moom ci yonent bi rek mu ne ko xaaral ma laabir la laabir boo xam ne ku dëggu la ci man soo bañee may ñëwati fii del jàng ayatul kursi moom rek laa ragal ayatul kursi kënu la boo xam ne nii boo ko ko dooree du jël siwaat fi ne doole jeeg pexe yëpp ab sàppet la ragal la soo xamee moyens yi nga xam ne moom moo koy dawloo comme ni ko sëñ Ahmad waxee ci biir waxtaan bi nee na bi mu jubee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ne ko noo def ak sa waaj sa gan mu ne ko ah say de nee na ma danaa la jox baat yoo xam ne soo ko jàngee duutoo ma gisati ba faw wala ku koy jàng doo ma gis sallallahu alayhi wa sallam ne ko lu mu la wax mu ne ko ayatul kursi yonent bi ne ko wax na dëgg doonte du waxkatu dëgg waaw kon loolu ñu bàyyi xel ne ñi fi jaar ñëpp ñëw naa ak ñoom ci anam yu baree bari ci Abu Hurayra ni mu toll ci lislaam kasaalika yi ci sëriñ bu mag bi muy tombu ñaareel bi nga xam ne mooy waxtaan bi dëgg dëgg dëgg diggante seytaan yi ak sëriñ bu mag bi te ku masa woote koo xam ne nii dafa mel ne seytaan dafa am baatin day mel ne daal moom gaa ñu baax ñi nga xam ne dañuy dañoo nar a doon yi dara ëllëg day mel ne bu leen nee jàkkare da koy xam noonu la sonale woon sëñ bi ci di ko feeñu ci anam bu ne mën nañ ne jeer bi nga xam ne mooy marxala bi gën a yéeme ci marxalay sëriñ bi nga xam ne foofa la buñ doon buñ doon bu doon ak togg dañ naan foofa la cin la commencé maanaam li ñu togg foofa la commencé di xeeñ ndax foofa la ahlu badri ñëwee foofa la ko suñ borom wane ay kimtaan yu bari foofa la iblis ñëwee nag jaxran ngir bëgg ko waxal waaye foofa yi la ko suñ borom dimbilee bam wax ne dafay tani iblisa inda jéewali yow yàlla suñu borom day maa ngi lay sant comme ni ko suñu Ahmad waxe saa yu wax li nga def seytaane du wax man ni ma def ni ma yàlla defal yow suñu borom fegal nga ma seytaane ca jeewal loolu ca jeewal ci marxala maraaxil yi mu jaar yëpp ci dundam gu tedd gi moom sunu sëriñ seytaane jaar na fa ak moom waaye lam ko waxoon ne ko soo fi jógee du tee danaa jàmmaarloog yow léegi dafa mel ne def katu ñaaw teef yëpp sëriñ bi la ñuy bëggoo tey li ci gën a yéeme mooy li sëriñ bi gënoon a fonk li mu gënoon a bëgg loolu lay woyof loo sëñ bi ni mu bëgg yàlla sëñ bi ni mu bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne loo saggan saggan saggan soo ko wanee dara ci yonent bi rek day mel ne ku sàggoog sàggoog da lay woyof loo ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam woyof loola jàng alquranul karim woyofa loola jàkkaat bi léegi ci aj yëpp loolu lépp ginnaaw sëriñ bi la kon day mel ne sëriñ bi ñëw na ci ak yaatal bu baax a baax a baax ak ay misaal yu bare bare bare bare yoo xam ne nii ay anam la yoo xam ne seytaan da koy feeñoo taalibe yi ginnaaw sëriñ bi muy ku am doole koo xam ne nii bari na mbëri yu daanu ak kilifa yu daanu yoo xam ne seytaane moo leen daaneel kon ñu ngi ñaan suñu borom mu musal ñu ci bu baax a baax a baax thème bii nag thème la bu raglu boo xam ne gaa yi ñu ñëwuñ moom moom ku ko tudd rek lay bañ waaye fii ñu ko tudd daal lu weesu tey yàlla nañ ci yàlla musal ba faw ba faw ci àdduna ak àllaxira te musal ci mboolem taalibe yeeg ñu aju ci sëriñ bi yëpp kon xam naa dañuy njëkkanteeg waxtu wi rek am na ay mbokk yoo xam ne bëgg nañ cee sànni ay kàddu kiñ ci njëkk a woo rek mooy al imam Hassan Diouf Serif Hassan Diouf bu noppee ñu ngi xaar sëriñ Ahmadou Cheikh Mbacke insha allahu taala
asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax di dund ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sant bu baax a baax sëñ ahmadu ci waxtaan wi yaakaar naa waxtaan wi kawe na njort ay duruus it la doon joxe yaakaar naa ne ñun dañ koy jariñoo rek day am lenn rek lu may lu may tudd loo xam ne bi ñu mujjee radiyallahu taala anhu ci àndoon ak sëriñ Saaliwu mu Cheikh Mouhamadul Mourtala sëriñ Saaliwu dafa tënkoon ak tënk boo xam ne tey jii lañ ko sëñ Ahmadu leeralal ndax sëñ bi dafa wax ne daanaka toog nañ ko lu mat trente minutes yoo xam ne sëñ bi dafa wax ne seytaane dafa bari pexe ba ba dugg daanaka aw saar génn ko te doo ca gis ay pexe te mel ni nit ñi bàyyiwuñ ko xel nga xam ne wax na ci lu bari lu bari tënk bu yaatu daan ni sëñ bi daanaka doo dugg xasida te du ko ubbee aoudu billahi min asheytaani rajim wax ci itam lu doy a dégg tey jii nag bi ma koy déglu day mel ni sëriñ bi dañ doon tënkal waaye tey jii sëriñ Ahmadou maanaam fàcc na ko bu baax a baax a baax a baax loolu mooy benn bi bi ci des seytaane mbokk yi ñun ku ko woyofal lañ te ko diis la koo xam ne sab noon sa benn noon boo xam ne leer na leen sa noon la yàlla wax ko te bu ëllëgee dama bokk ci li muy yedd nit ñi mooy waxuma leen woon ne woon seytaane seenum noon la kon loolu man de damaa jàq tiit itam yàlla na suñu jàq geeg tiit gi nag jural nu ak mbaax ak mucc ci seytaane waaye tiit naa loolu ndax damaa xam ne seytaane li ñu wax ak li mu baree pexe ak doole ji te bàyyiwuñ ko xel kooku lu doy waar la loo xam ne mat naa mat naa mat naa xoolaat pexeem yi bari na lool suñ li ci sëñ bi wax man du ma ci du ma ci dellu ci ndax leer na naañ am naa samay kii nii waaye li mu ci wax doy na waaye bokk na ci ay pexeem benn boo xam ne dinaa ci taxaw tuuti muy muy ñi nga xam ne wàllum wàllum wérdu ndax koo xam ne xasida yi ni mu amee solo sëriñ bi mu amee solo mu mën a wax ne danaa ci dugg jaare ci ñu yóbbu ci nit safara loolu raglu ndax sëriñ bi nee na ni am na ku mas di jàng waaw bu daa jàng sëriñ bi dafay day gën di ko jox ay ay hadiya ndax xalima gi ki muy tudd di sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam buy jàng xasida bi kooku la sëriñ bi loolu lay yëg ndax sëriñ bi léeg-léeg ñu jàng ak xasida mu ne ko wax loolu mu ne ko yow xanaa mbàcce mu ne fa ma ko doon waxee de buñ fa yóbbu woon keneen ku dul noonu loolu fa jële ngay wax waaye doo sàll di tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xasida yooyu nag ak ni mu toll bu fekkee ne seytaane am na pexe jaar ci ba nit jaar ci dem sa war a loolu rag loo rag kooku bala leneen kon ñuy nett li benn xista rek bu mat a xalaat la rek am na ci koo xam dégg naa da doon daa doon wérdu di yàlla di tudd yàlla ba am lu ñëw ne ko maay sa boroom mu ne ko waxoo dëgg mu daal di ñëw ba ci moom ne ko ah wax nga dëgg de lu tax nga ne lu ma sa borom mu ne ko suñ borom amut fu mu féete te yow am na fu mu féete mu ne ko wax nga dëgg waaye nag yow ngand nga muy dem nitu yàlla gi woowaat ko ba mu ñëw mu ne ko kaay jëlaatal sa ngand nga gi yóbbu ko ndax seytaane bi bu ko ne ngand ga bu demoon waaye yëg boppam te bu yëgee boppam yàqu la kon seytaane ku doy waar a doy waar la koo xam ne kenn mënta mucc ci moom te wéeroo ci yàlla loolu kenn mënta mucc ci seytaane te jëloo sa mbir wéer ko ci yàlla moo tax foofu rek yaakaar naa ne mooy kii lim ci waxaat lu am solo mooy sëriñ bi lu ma marqué la mooy sëñ bi doo doo dégg mukk ak li ko yàlla may ci ay pexe ndax sëriñ bi ku yàlla may la waaye li ko yàlla may may doo dégg mukk mu ne ni ma def seytaane waaw maa ko ren bi déedéet ay yasa ay yasa minnillaahu inda jéewati nga xam toujours rek suñ borom lay wax te loolu lu mat a bàyyi xel la ci ñun ñi nga xam ne vraiment fiñ toll nii war nañu bàyyiwaat xel seytaane baax a baax jataay boobu lañ mujjee siyaari sëñ Saaliw muy Azhar te loolu la la tëji wax ja daanaka te loolu lu ma doon fàttaliku la rek di ñaanal sëñ Ahmadu yàlla na ko yàlla gën a dëgëral gën ko musal ci saytaan te gënu cee musal waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf imaam Hasan ci kàddu yu am solo yi xam naa dañuy njëkkante waxtu bi rek woo sëriñ Ahmadou Cheikh Mbacké moom it mu ñëw bu noppee sëriñ Baara Diop mooy moo ci topp suñ noppee ñu soog a yëkkati jataay bi incha allah kon xam naa sëriñ Ahmadou Cheikh bu fekkee jege na ñëw fekk bismillah
salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi jégalu Ahmadou Seexu ki lañ xamul bàyyi Seexu Mbàkke la ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di sant ki nga xam ne moo doon def waxtaan wi ci waxtaan wu am solo yi nga xam ne def na ko ndax li mu doon waxtaanee mooy seytaane nga xam ne mooy noonu doomu aadama ni mu ko waxee ci tàmbali waxtaan bi di noonu jullit ñi wala boog ñëpp képp ku gëm diine gëm yàlla waaye rawatina ñun jullit ñi jamono ju nekk nag muy jëflanteeg ñi muy taseer ni mu ko waxee ci biir tudd na jumtukaay yi muy jëfandikoo bu bëggee xeex mbooloo muy tudd ci jumtukaay suñ ko yi mu jëfandikoo ak xeex bi suñ Tuubaa radiyallahu anhu tudd ci yu bari yëpp it di dëgg waaye xëy na sax wax na ci biir waxam daal ne xam naa du ngeen ci d'accord man mooy ci bi jëm ci suñu mbokk ci wahabis yi du question sax wuute waaye damay gis ne wahabis yi man bu mu mënee noonu suñ tubaa directement waaye ci seen biir comme ni mu ko waxee nag xam ne ñu ñu baaxuñ ci seen biir bi woote boo xamante ni doctrine la bu nekk ci lislaam waaye ñu ëppal ci seen biir ñooy do ñooy problème bi ñu ëppal ci seen biir ñooñu nag noonu lislaam lañ ñooñu noonu lislaam lañ te it dafa bokk ci ni mu ko waxee seytaane léeg-léeg day jëfandikoo ki muy xeexal ay ngànnaayam lay jël jëfandikoo ko xeex ak moom ñun jullit ñi nag dañ koy seetlu lu bari ne seytaane dañuy jëfandikoo ci suñ biir di ñu fenqalee di jël kenn ki di dóor ci keneen ba ñun ñu sax taxali ko ba duñu amati taluk défendre suñu diine ji duñu am taluk défendre yonente bi duñu am taluk défendre suñu borom waaye ku nekk sa borom ngay jéem sa bopp sa jëmmi bopp ngay jéem a défendre wala sa kuréelu bopp lu am solo loolu ñu war koo bàyyi xel bokk nañ ci jamono ji ñun ñun murit ñi dañ ñuy gis ne ñooñu suñuy noonu lañ la xam am na ci côté boo xam si moom ak noonu la waaye am na ci côté boo xam ay mbokk lañ waaye dafa def beneen noonu boo xamante ni xëy na junj na ko ci wax waaye tudd ko mu leer muy ñun murit ci boppam léeg-léeg ñu doon wàcci la ci kaw saytaane mu jëfandikoo ñu pour dóoree ko suñ tubaa ñun murit yi léeg-léeg ñun ñooy doon noon bi nga xam ne wala bokk ngànnaay bi nga xam ne moom la saytaane jëfandikoo pour dal ci liggéeyu suñ tubaa bi yàq ko mën naa ne sax passé na rek nga ne julli ndax boo ko waxee ñu yaakaar ne taalibe yi doon ko ci wax waaye jëmmi sëriñ si mën naa ne sax mën na maa passé sëriñ si waaye jëmmi ñi ci sant Mbàkke léeg-léeg ñoom ñooy doon ngànnaay bi nga xam ne moom la saytaan yi jëfandikoo te ñooy ñi ci gën a foor nga xam ne ñëpp moom lañ fonk yaakaar ne ñoom seeni wax gonga rek nga ci war a teg te fekk na ñu ci bëri ngànnaay la loo xam ne saytaane daf ko jël di ko dóoree maanaam yàqe ko woote suñ bi te muy woote bu sell suñ bi moom xam naa saytaane mënul ko ndax xeex naa moom ba gañ a ko waaye nag saytaane daa nekk koo xamante ni dana daanu waaye du ne ngalañ dana daanu waaye du ne ngalañ day daanu dugal su si nee xeexaat ak xeexam day àgg ba yomal xiyam loolu nag war nañ cee bàyyi xel te dafa mel ne dañ koy seetaan ndax ñooñ ñi nga xam ne ñoom la seytaane jëfandikoo damay seen ci yoon yi dafa mel ne ñoo gis ku doole day mel ne ñoom ñoo gën a am fit ci wax liñ bëgg ñoo gën a am fit ci jàllale seeni xalaat ñeneen ñu wuute ñoom yaa ngay nëbbtu booy wax ak di naan fii suñu ma ko wax fii lii ko wax nangam lii ko wax nangam te nag loolu moom day mel ne ñun bu boobaa ñun jullit ñun jullit ñëpp waaye ñun murid yëpp la nekk ñu responsabilité ñu war a taxaw nag jàmmaar loolu ñi nga xam ne ay noonu suñ tubaa la ba noppi wane ne ñoom ñooy soppee suñ tubaa loolu it dañ cee war a wax ndax lu ñu war a seetlu la ci biir mbooloo bi léeg-léeg rek booy xool murid da ngay xool doo xam ñaata kuréel ñoo ci nekk doo xam ñaata kuréel ñoo nekk ci biir te ñoo ñëpp ñu war a jàmm ak ñoom fexe ba ràññal la li suñ tubaa bëgg ak li mu doon woote bañ a taqal leen ndax yaakaar naa dikk na ci nettali ñuy wax ne daana wax ne baa du ngeen ma rusloo ñu ne ko mbàkke nañ lay rusloo mu ne ngeen di tuddoo sama tur bi di sant sama sant bi ci su ngeen defee ñu ne acam te loolu yaakaar naa jamono xam na ko léegi jamono xam na ko loolu mu bëri bëri na ñoo xam buñ defee ba noppi buñ la tëroon ci seen kanam ren ren nga ci bëgg buñ la tëroon ci sa kanam ren nga ci bëgg ndax lu ñaaw li ñuy def ba noppi di ko askanale fi ni ko seex di waxe léegi mais lu bëri ci ñi ndax léeg-léeg day nekk xeeti o malja la koy tudd xaw ma maanaam dañuy def seen yëpp ba noppi tuddoo seen sëriñ bu noppee sëriñ ba défendre leen ci sëriñ ba du ko teg ci lu seen intérêt boppam kan mooy responsabilité ci loolu nag maanaam ñi nga xam ne ci biir yoon wi lañ nekk di jàmmaarloo Sëriñ Tuubaa ci façon boo xamante ni ku yéexut doo ko xam moom ku sam xel duggul ci mbindum Sëriñ Tuubaa dëgg dëgg dëgg dëgg doo xam ne ñii noonu Sëriñ Tuubaa lañ il faut que ñooñu ñu jàmmaarloo ñoom te xeex ak ñoom génn leen woote suñ tubaab bi delluwaat bi sunna sa nga xam ne moom la diggoon di yeesal ba mu nekk na war a nekk xam naa nag am naa occasion ci sëñ bi ma laaj ko benn laaj boo xamante ni ci biir wax ji dégg naa ko mu jëm ci wàllum weeru koor weer wi at mi suñ tubaab waxe woon ne ku gis weer na nga na nga sul moo xam ne seytaane nga gis te mu wax ne maam Cerno radiyallahu anhu daa wax ne da ko fekk moom nekkul foofa mu daal di wax ne ah ñun de xàmmewuñ weeru seytaane ak weeru wurus seytaane te ñun nekkuñ foofa kon ñooña wax ja ñooña la concerné masala boobu ñun ci suñu jamono ji ñu nekk nga xam ne coowul weer daf ci bëri lool nan lañ ciy dégg est ce que day wane ne murit bi sañ na ñu déclaré Touba ne gisuñu weer wi am murit yu taxaw daan ne ñoom bi ñun concerné wuñu ndax ñun fi ñu nekk gis nañu weer wi ndax fi ñu dëkkandoo gis nañ ko ca ñooñu ñuñ dëkkal la ca doy nañ ñu masala boobu dama ko ciy laaj ba xam dana ci mën a dana ci mën a génn lan mooy ceq biñ mën a génn ci boobu boobu nettali ndax yaakaar naa nettali waruñ koy romb noonu rek di jàll ndax lu ñu war di bàyyi xel la ñaari dafa am beneen problème bu ma war a régler ndax ci problème weer wi dama demoon sa wax ak nit ci comme taw yi mu ne jamonoy tubaab bi ñaar daawuñ ci wuri ci askan wi Sénégal kenn du su julli ñaari yoon ma ne ko loolu foo ko teg da nga may indil këyit wala décret bu wala këyit muy wane ne tubaab bi da koo aaye woon ak fan la tubaab bi daa jaar ba wax Sénégal yi yëpp ne leen wóorandoo leen moom amut kii ba noppi ne ma loolu mooy dëgg xëy na suñ bi ginnaaw xam na loolu mën naa am yeneen wuute yu mën a taxal wan ma ne benn wax na kooku wax na dëgg li te tubaab bi taxawoon na ba Sénégal gépp benn julli moo fi daa am demal ñu fi nekk waaye wuute bi bi mu demee ba tubaab bi génn bi la ñun julli ñu xoole ba sàggane waat ko wala loolu ay waxi neen la rek ñu ngi sant ki doon def waxtaan wi di sant waa rawdu kii afan antaaru diin al islami yi nga xam ne ñun ci ci lañ war a bokk wala ci lañ bokk ndax ñun ñëpp ci waa asra lañ bokk والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu jërëjëf sëriñ Baye Cheikh Mbacke ci kàddu yi am solo yi ak leeral bi xam naa laaj bi waxtu yi sori na lool te maa xamut dañ koy bàyyi ba ñëwaat bu ëllëgee ñu mel ne ku jëlaat thème bi laajaat ko wala dañuy jox sëñ Ahmadou ndax am na beneen laajit bu ci waddaat te guddi na lool te mel ne sëñ bi sonn na lool moom it xaw naa ko yërëm ci jotaay bi waaw xam naa kon nga tontuwaale laaj bi rek mbokk mi nee na moom daal nee na Iblis yal na ko yàlla dolli rëbb nee na daal dafa gis ne daal saytaane daal li muy kàccoore kàccoore ak li muy saay saay yëpp buy wax ak yàlla daal day mel da koy màggal rab bi lay wax ak bi izzatik maanaam kàddu yu yu kawee sax lay lay lay jëfandikoo ci digganteem ak boroomam ca yàlla moom moo ne sama noonu la ba noppi moom buy wax ak yàlla daal di ko jox respect bu mag a mag a mag nee na nag muy laaj naan loolu daal lu ko waral
waaw man de suñu laaj yi moom xam naa gars yi sëñ bi doon laaj moom mën naa tontu rek sëñ Baye Cheikh moom mën naa tontu rek ci laaj bi bu dee da aju ci loolu nag man li ma déggee kii bi rek mooy borom daaru moxti dafa bañoon ubbi buntu nga xam ne buntu boo xam ne buñ ko ubbee dañu saa yu gisee weer doo mën a xam seetaan la du seetaan mu tëj far buntu boobu rek ginnaaw sëñ moom ñam nekkaloon la digal ne dem leen ngeen sëlma moom nekkul fa moom te gis na weer mu jàpp ci li mu jàpp loolu it murid yi yaakaar naa bare moom la ñuy wéyal murid yi ya ca Espagne ñoom ci waa Espagne lañu la ñuy woor yi yaakaar naa ci la ñuy woor ci la ñuy tabaski itam ci seenu gis maanaam murid bu ne ci adduna bi fi ne ci dëkk ba nga ne ci ñoom ngay àndal woor ñoom nga àndal woor ñoom nga àndal tabaski ndax gox bu ne léegi nag mu def nag ñun ci biir réew mi nag ndax sañ ngaa nekk fii dëkk Touba waa Touba ñoom gisuñu weer nga ànd ak waa Gànnaar wala waa Mali wala waa waa Guinée Bissau wala waa Arabie Saoudite loolu moom wuute fiq la boo xam ni lañ ca waxoon ca téere rek ndax sëñ moom dañoo wax lu leer mooy mooy alaykumu bil malikiya fa innaha mutahharatu munawwara ca biir wax ja dafa wax ne lu ngeen gis ma koy jëfandikoo te mu wuteeg li nekk ci téere yu maaliki yi fiq yi na ngeen bàyyi li may jëfandikoo te dem ca téere yooyee la ca ne ngeen ngeen jàpp loolu nag kon masala fiq yi la boo xam ne rek ku ne mi ngi ay ci na nga day taxawee loolu ci li sëñ bi wax nag moom xam na lu ma xamul ku ko laaj waaye dama ko war a bëggoon a bàyyi fallu suñ falu moso xam na sëriwu ko seytaan nag moom xam na yàlla moom xam na yàlla xam na màggug yàlla xam na itam leerug yàlla itam ragal na ko moo tax yooyu mu wax yëpp itam damaa yaakaar ne génnul ci pexe yooyu rek xëy na suñ fagg bu ñuy gën cee leeral waaye mu xam ne yàlla moo tax mu wax rab bi xam na ne yàllaa ko sàkk xam na ne yàlla yàllaa ko xam na mag suñ borom itam yi mu jéem a duxal waaw yooyu suñ bi neen day tappale rek loolu daal mooy gàttal asalaamaaleykum
jërëjëf kon xam naa ay tappale la rek waaw jërëjëf xam naa sëñ Fallou Guèye bu fekkee am na ci kàddu waaw jërëjëf day mel ne sëñ Amadou tontu bi matale la Serigne Bara Diop da xam naa moo nekkoon borom kàddu gu mujj gi su noppee ñu soog a yëkkati jotaay bi Serigne Bara Diop bismillah
asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokk yi maa ngi siyaar ñëpp tey sant bu baax nag tey am mbégte nag bu baax a baax a baax ci sëriñ Ahmadu mii doon def liggéey bi xol yëpp sedd na sëriñ Ahmad nag day meññetum ëtt sëriñ loolu moom xam naa ci lu wér sëñ Fallu bu samee témoin la ci ne xam naa ci lu wér dañ ko ñëw mais xam nga ne xam naa ci lu wér ndax way jur lii ñuy wax nii léegi rek ci feeñu weer bi nga xam ni dafa feeñ ca njaarim te sëriñ bi waxan ni koo gis na nga sëlmu ba ma ko way yuram di nett bi nga xam ne fa la fekk sëriñ Abdul Xuduus mu jóge fa fekk yónnee na maam maam Cerno la doon yóbbu ci sëriñ ba jóge fa jaar jaar bi fii ci maam Cerno fekk ko fi mooy bi sëñ Tuubaa joxee maam Cerno jumaa ji di ko liggéeylu muy jumaay Tuubaa bu dee fàtte am na lu mel ni ab janj ci barabu sëñ Isaa Jeen ci buntu barab ba ciment bu yàqu la boo xam ni foofee liggéey ba nga xam ne defar nañ fondation sëriñ Abdoulahat mboolem moom ngi liggéey daal gas bu fondation boobee nga xam ni maam Cerno na ko doon def muy jumaa ji indi ko ci liggéey yi mu doon liggéey muy daaray kaamil ak ay nu raxmati ak yokkub jumaa ji daa gas ba xëy yooyu jëndaat ko def ko ci li ma gën a neex nag tey tey di ci jidaay bi mooy fii ñu toog di fi waxtaane xam leen ni fii sañ ci bii sañ tuwaa tudde woon Daaru Salaam fii lay ñoon ñaanale njabootam gi bi muy dem ci géej gi di leen dénk borom Daaru Musti kon tey bu fi dereti borom Daaru Musti taxawee di waxtaan ci diine ak yoonu murit sama xol day sedd lool ndax jàkka ji man bi may jàng fii ci daara ji Sëriñ Moussa daf maa joxoon ndigalul may nodd ci jàkka ji booba jàkka ji mur bu gàtt la ak jimb nefi maa ko nuy wax ba siru jóg kaw la mu jox ko ndigal mu di fi jiite ji waaye man boobu maa daan noonu dali nag Sëriñ Ahmadu maamam ji Cheikh Moussa dafa wax ne yàlla képp mooy ki mën a sàmm yàlla na la sàmm loolu rek mooy kàddu yi mu bëgg na jotal ne ko ñëpp di ñaanal sàmm sunu borom ci moom ne yàlla yéere woon Sëriñ Tuba mbalaanum sutura ba mu dem ci géej gi ba dellu si yàlla na la yéer ba sa yéene mag barke Sëriñ Tuba yàlla bu seytaane am ci yow yoon seytaan nag moom du mas a tekki ngembam maam ak laxasaayam du ko tekki kenn mu taram bu ak laxasaayu seytaane ñu ne ma nga ne tekki na ko ndax daa sonn déedéet ndax seytaane du sonn ginnaaw ndax li ma gën a déggee ci waxtaan yi nag mooy fiir mooy li dal seytaane ginnaaw suñu moom dafa xamal ne daa bind dara lu may wàcce ci suuf te moom mu yaakaar ne moom moo war a jiite suuf maanaam fiiraange dugg na kon mooy li nga gis ne ci ne génn jigéen bu fiir amul góor mooy fiir waaye jigéen bu fiir wasalaamaaleykum wa rahmatullah
jërëjëf sëñ Baara kaddu yi am na solo kaddu yi seere yi xam naa ci kàddoom yooyu rek la ñuy sofaat kaddu yoo xam ne mi ngi bàyyi ko ci ansaaru diin al islaami di kàddu yi cant jëmaat sëñ ahmadu bu baax a baax ñu ngi lay sant bu baax ndax gi nga xam ne saa yi ñu la soxlaa ak waxtu wu ne nga ñëw defal ñu ko ci anam bu xawee njot kon ñu ngi lay jotliwaat kàddu koo xam ne mi ngi bàyyi ko ci mbooloo mi ni ko suñ baara waxee rek ñu ngi lay ñaanal suñu borom mu sàmm la ba liggéey bi nga nekk nga am ci ngërëmal sëriñ bi lu xawee sa njot di santaat bu baax a baax waa Qurratul Ayn ci njiital Serigne Abo ak Serigne